nekk chef religieux mais également nekk ku jege lool ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall moom la ñu fas yéene àndal ci jotaayu waxtaan bi euh, ngir nag waxtaanee yenn ci ay ponk yi nga xamante ni actualité la biir euh, réew mi ak ci réew. Euh, ñu ci ànd également saa su nekk ak suñu chroniqueur Cheikh Kane tey nag moo am ngant moom moo tax ñëwul ci li nga xamante moom moo di jotaayu waxtaan bi ñu fas yéene ci ànd ak suñu gan wante dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ko mbokk internet di laataa ñu sóobu ci waxtaan bi sañ bi Habib ñu lay ziar. di la nuyu bu baax leen nuyu bu baax di nuyu téléspectateur yëpp. Mm-hmm. nuyu doomi Sénégal fu mu nekk fii ak bitim réew di nuyu waa télé Sénégal bu baax parce que mooy télé boo xam dañ koy suivre bu baax gis ay émission yu am solo di fi jàll ak ay débat yoo xam débat day de la parce que réew mi foog naa ne loolu la soxla mooy débat day de kon nag buñ koy suivre gis mu nekk ci loolu faaw dinañ ko féliciter ci loolu daal alors ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci wis bu ñu wisi ci jotaay waxtaan bi euh, mi nga xamante dañ koy dooree Euh, en tant que chef religieux d'abord euh, ñu gis euh, njiitu réew mi nga xamante ni moom mooy président Diomaye Faye yenn ci ay kàddu yi nga xamante ni ñu ngi ko doon yëkkati laataa muy nekk président de la république ñu ci bëri jàppoon ne ay ibaadu lañ ñenn ñi sax dem ba leen di wooye ay salafiste ñenn ñi di jàpp ne ñoom bu ñu toogee xëy na dana am taxawaay ak image boo xam ne dañ koy jox këru diine yi ñu gis le président toog visitam yu njëkk ak génnam bu njëkk mu réserver ko li nga xamante ni moom moo di Touba ak Tivaouane ginnaaw bu loolu également ñu gis mu dem ci jàngu bi ginnaaw jàngu bi également ñu gis ko mu dem foofu lee ci Daaka loolu di wane euh, taxawaay bi nga xamante ni euh, njiitu réew bi am na ko waaye également topp ci tànk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiitu woon ci ci ci présidence de la république. waaw foog naa ne loolu moom lu jaadu la ndax jumaa yi nekk ibaadu nekk leneen ak leneen kooku moom la intéressé. Mm-hmm. naa la wax benn anecdote mm-hmm. élection dafa am. Euh, Senghor ñëw set sëñ Babacar si am taalibe yu jëm ci moom ne ko kii nga xam ne du biyeefar ba pare ñëw nga koy jàppale waroo koo jàppale. Mhm. keroog sëriñ Babacar daf leen a tont tont bu am solo. Mhm. dañ ko wax mu ne leen seetuma imaam kuy jiite réew laay seet. Mhm. te jàpp naa ne xam-xamam ak xalaatam mën naa jiite réew mi moo tax ma koy jàppale waaye bu ma doon xool imaam dama ko fi jéggi seetuma imaam nag am réew laay xool. te réew mi nag ñun ñëpp ko bokk. kon moo tax man nekkuma ci dynamique eh, jumaay lii la lii la wala laa la parce que jàpp naa ne moo jiite réew mi bu toogee ci réew mi tamit kilifa diine dafa am lu leen fi yàlla mm-hmm. dénk mm-hmm. loo xam ne ay lay yéwén ba Sénégal amagul indépendance sax loolu ñoom ñoo ko yoroon mm-hmm. kon bu defee loolu mu def am amu ci lu yéeme amu ci dara amu ci ñi xamul rek ñooy def loolu ah parce que jumaay xaare wuñ ko pour muy dem di summi daal wala muy sujjóot déedéet yi liñ koy xaare ngir Touba population ba fa nekk senes ba fa nekk nga xam ne bu rombee ndakaaru amul benn senes bu toll noonu bu nekk Touba mu xool senes boobu nu ñu amee liggéey foog naa ne foofu lañ koy xaar mais xaaruñu ko muy dem pour nax murid yi comme li fi daan jaar parce que dañu gis Idriss Seck ñëw parce que murid timit faaw ñu delloo suñu xel te bàyyi politiciens yi du ñu foye Idriss Seck dafa ñëw bi mu toogee xalaat nu mu war a def ba récupérer électorat murid yi ci président Wade ak Karim bu mu toogee xalaat xalaat xalaat mu ne murid daal sëñ bi rekk jeex ci ñoom mu dugg Touba ne xat fakk kabla xat ba safat la fadur wala wana fu jaay rek murid yëpp yuuxu ne waa jaa ngi nii wootal ko mu am fa loo xam ne amu ko Cees gëm dëkk sax après élection yi jàll idi lam soxla woon ba mu ko amee dafa defaat ne Touba jumaay bi mu ñëwee coow li bari lool biñ ko conseillé lool xam naa ne ay nit ñoo ko wax ak moom rek ne ko murid moom la leen gën a nax mooy sumil say daal ba àggee fóon sa loxob sëriñ moo tax ne ko man ko fii parce que man bokkuma ak Sénégalais yu fi ñuy xaar fi ma koy xaar mooy ndoxum Touba nga xam ne ñu ngi koy dund plus de cent ans mhm. ndox ma naqari ba doomu aadama mënatu koo naan mhm. xam ne ndox mi moom yaakaar naa Touba bi bu nga ko xoolee xam ne ndox mi ko naan mën na laa def jàngoro mu saafara loolu la ma koy xaar senes ba nga xam ne tey kenn xamul nu ñu toll mhm. kenn ku ci am métier amul mu def fa ay formation ndaw ñu am ay liggéey man foofu laa koy xaar ak assainissement Touba nga xam ne màggal bu jotee mboolem kuy màggal rek da am jafe-jafe mu fexe ba loolu saafara man foofu laa koy xaar waaye hmm. xaaruma ko fii ñuy wax euh, comme ni ko njiitu réew mi euh, Macky Sall defee euh, gis nañ ne def na autoroute laa Touba am na ci liggéey bi nga xamante ni également Serigne Mountakha door na ko muy université bi gis nañ dugal na ci loxom ci genre yooyu ngay xaar ki nga xamante ni moom moo di moom moo di président bi xam nga ak ndox mu neex xam nga xam nga nee naa leen Touba ki nga war a jëf ne ko gàcce nga la mhm. mooy le président Macky Sall mhm. jàpp naa ne tey ku ne gàcce nga la am keneen ku dul président Macky Sall rek loolu du lu war parce que nag dëkk boo xam ne yow ba nga dalee politique ba léegi mosoo koo gañe mboolem opposition boo jàkkaarloo bu ñëwee gañe na la Touba te teewul bilaa ba nga fa def ñi la fi wutu muy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ña ngi ko daan gañe defuñu ko fa parce que tey boo demee def na Touba hôpital niveau 3 ba nga xam ne diggante Daaru mus a Touba mbooleem ko feebarati tey foo nga jëm man gis naa ay malade yoo xam ne dañu leen dellu Dakar gi sax di ne bokk na ci bilan a rëy ci bilan Touba la ko parce que njariñ li jàpp naa ne képp kuy voyage dem Touba rek gis nga njariñ li parce que foo daan dem def quatre heures de temps cinq heures de temps jumaa ji tey bu masaan taa pour nga dugg ci jumaa ji day am ay jafe-jafe mais nag assainissement mooy bilan boo xam ne pour nit justifier ko day jafe. Mhm. parce que lu ñuy liggéey la mu dem suuf foofu tey gis nañ mu def assainissement bu am solo. mais terewul ba tey terewul terewul ba tey Touba am nañ jafe-jafe tu jëm ci nawet gis nañ jànkoon jafe-jafe yi. ñuy jànkoon dama ne la euh, xam nga jeex. Mhm. tey bu ñëwee def lii jumaay ñëw def lii. Mhm. keneen ñëw àggale lii. parce que li ñu naan état et continuité la. le président Macky Sall amoon na yéene def parc industrie. boo xam ne tey ndaw ñu baree bari daan ci gis seen bopp. am fa yéene ndoxum Touba mi tey priorité bi njëkk loolu la woon comme nag mébét baa ngi fi xalaat baa ngi fi xëy na président Diomaye Faye dana ko jéem a àggale sama xalaat bu gàtt foofu lañ koy séentoo ñu àddu wax parce que Touba nag jàpp naa ne lu ko nit defal daf ko mérité mhm. parce que population ba fa yeewoo boo rombee Dakar amul lu fay li muy dugal ci économie Sénégal amul benn dëkk bu koy dugal fii ci réew mi mhm. ñu wax ci leneen ak euh, li nga xamante ni moom moo jëm ci rapport corps de contrôle gis nañu euh, rapport yu bëri yoo xamante ni génn na euh, notamment OFNAC Cour des comptes IGE yu ci bëri